jërë jëf sunu mbokk internet yi mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñu nekk ci biir réew mi ak yéen ñu nekk ci bitim réew mbokk yéen a ngi ci Bawal info TV Abdou Khader Seck moo nekk ci kàddu gi kàddu gi di bàyyi ko fii ci dëkk bu sell bi di Touba mbokki nag coow li bari na am Ousmane Sonko indi Ousmane Sonko euh, ñu bëgg a indi ay leeral ndax dama jàpp ne. temps de grâce bi nga xam ne sax moom lañu doon maye kuy doog di toog ñii sax mayuñu leen ten de grâce mu mel ni jël nguur gi nga xam ne ñoom Ousmane sonk jël nañ ko nguur gi ba léegi am na ñoo xam ne mënuñu ko wanaasu tey dafa am ñoo xam ne gis naa ci ñoom boo dégloo seeni kàddu nga xam ne ñi bëgguñu Sénégal te buñ sañoon Sénégal dugg ci guuta te Sénégal du ay malien moo ñu koy ñëw di ñu ko defaral wala ivoirien sénégalais yi ñooy defar réew mi te tey dañoo war a fexe bokk ndey bokk bàyyi ba Sénégal développé mel ni comme yeneen réew yi waaye dafa am ñoo xam ne dañoo taxaw ngir Sénégal deltu ginnaaw am ñu taxaw ngir ñoom Ousmane Sonko échec tey am na ñoo xam ne gëm naa ne du ñu julli ba taxaw wala ñaan benn seconde Sénégal jàmm am fi wala Sénégal avancé am na ñoo xam ne bu ñu sañoon dund gi du wàññeeku am na ñoo xam ne bu sañoon dëkk bi day fees ak ndox inondation am am na ñoo xam ne bu ñu sañoon Sénégal yi sonn am na ñoo xam ne bu ñu sañoon Sénégal yi xiif di jàmbat loolu lépp am ñoo xam ne. en gi nga xam ne moom la ñu en Ousmane Sonko liñ ko ëmbal moo tax te réew mi moo ëpp Ousmane sonk réew mi moo ëpp Jomaay euh, lu jëm ci déclaration politique général dégg naa Ahmed Khalifa Niass ne Sonko dafa war a dem assemblée nationale def li nga xam ne tey mooy déclaration politique général dafa war a respecter constitution bi dem bay wax wàllum dictature euh, tey Ousmane Sonko. dafa am responsabilité bu mag ci régime bii ndax sénégalais yi xam nañu ne tey bu président ba Bassirou Diomaye Faye nekkee président ginnaaw yàlla Ousmane Sonko moo tax loolu du débat léegi nag bu dee tey par exemple tey Ousmane Sonko dafa taxaw ne impôt ñi ko war a fay ñépp dinañu ko fay su dee loolu tax ngeen ne dictateur la. ma xam ne sénégalais yi ñoo ko na ko nekkal ab dictateur ndax ñoo ne ko képp ku war a fay impo na ko fay ndax ndax réewu tubaab yépp xam nañ ne foyewuñ mbirum fayum impo sénégalais yi ñoo ne ko bu ñu bu kenn détourné alalu réew mi te ñi yoroon réew mi nañu leen saytu ba xam dañoo luubal alalu réew mi wala luubaluñ alalu réew mi loolu sénégalais yi nga xam ne ñoo leen votel sénégalais yooyu ñoo leen ko sant dafa am nag ñoo xam ne bëgguñu Sénégal xaj na ñoom mën nañ seen bopp amuñu benn jafe-jafe waaye bëgg nañ ba réew mi nekk si jafe ba gé ba génn ci loxo yi am na ñoo xam ne luñ man dinañ ko def pour réew mi génn ci loxo yi nga xam ne ci la nekk te li intéressé Sénégalais yi ak li ñu war a intéressé mooy na développement am na développement am ak ku ko mën a yor réew mi na Sénégal rek suqali ko tey ñi nga xam ne ñoo naan Ousmane Sonko na respecté constitution bi Ousmane Sonko dafa war a def déclaration politique générale mais kan moo dégg Ousmane Sonko ne demuma def déclaration politique générale Sonko li mu wax mooy te ba léegi ñoom amee xalifa Niass ak wax kenn weddiwul li Ousmane Sonko wax kenn weddiwu si li Ayib Daffé wax dañu ne même Mamadou Lamine Diallo bu tekki wax na ko dañu wax ne assemblée nationale bi ñu di bi ñu supprimer poste premier ministre ba bi ñu koy delloo siwaat defuñu si li nga xam ne moo jëm ci wàllum déclaration politique générale motion de censure ak question de confiance ko ne bu ngeen ko si delloowaatee ba mel na mu meloon pare naa pour ñëw def sama déclaration politique général ndax déclaration bi pare na te yàkkamti naa pour def ko te constitution bi moo ko santaane lii la Ousmane ko wax te Mamadou Lamine Diallo bu Mamadou Lamine Diallo bu tekki bindoon na avant lii lépp président assemblée nationale di ko wax fraude bi ci am kon dama jàpp ne képp koo xam ne nitu dëgg nga. képp koo xam ne réew mi intéressé na la képp koo xam ne réew mi ñor na la li nga war a wax mooy nañu saafara manquement yi nga xam ne moo am ci réglement intérieur bu assemblée nationale euh, ñi nga xam ne tey ñooy opposé dañu war a opposé ak responsabilité te yërëm sénégalais yi te ñi ñu dénk réew mi ñu xam xaalis la ñu dénk réew mi ndax Sénégal li ko yàq lépp mooy wàllum détournement ak ñoo xam ne dañuy argument suufu jàmbur ñi ñu dénk réew mi ñu nekkoon ay inspecteur impôt domaine ay fiscaliste ñu xam wàllum impo wàllum TVA wàllum xaalis ñi ay banquier lañ ñi ay économiste lañ ñii lañu dénk réew mi xam nañ suuf aussi teg si léegi nag yuuxu yi ak tëb di dal gi ci réew mi barina léegi ku aj dafay bañ ku téen am na ñoo xam ne nekkuñ ci lu leer ba nga xam ne dina leen jaral ñuy nekk ci ginnaaw ay waxkat pour di ruube waaye loolu génnewu ci kenn koo xam ne war nañ laa saytu ba xam alalu réew mi danga ko luubal wala luubaloo ko alalu senegal ndax senegal yi dañoo sonn boo demee ci kaw gi am na ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki am na ñoo xam ne ordonnance cinq mille francs mënuñu koo jënd ñu ne réew mi am na ñoo xam ne détourné nañ ay milliards golo yi bay bu di dunde mooy jeex Sénégal xaalisu réew mi Sénégal yépp ñoo ci tolloo li ñu bëgg mooy équité ñu nekk ci monde rural bi gis seen bopp ci réew mi di faju seen doom yi di jàng mais am na ñoo xam ne trop tàngeek sénégalais yi moo leen neex am na ñoo xam ne bu ñu sañoon tey dëkk bi day gën a metti dëkk bi day gën a naqari am na ñoo xam ne iñaane nañ sax gis senegal baaxee ci loxol usmaan Sonko wala Bassirou Diomaye Faye senegal moo ëpp junni Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye Sénégal dafa weesu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye xanaa war ngeen a yërëm seen sët yi nga xam ne sax ñuy ñëw ndax ñu man fee fekk réew moo xam ne réew mu baax lay doon waaye nii ngeen di opposé ak nii ngeen ko commencé jëmut kër waaye su su dee man ngeen a teg pression usman sonk Ousmane Sonko ngi noonu yéen a ngi noonu ndax presse ak ay lobby ci fànn bu nekk teg nañ seen stratégie ngir faagaagal usman Sonko yàlla àndu ci yàlla àndu ci kon il faut que ñu ànd ak dal tey wax dëgg ndax kuy waxal kuy wax dëgg xam nga ne euh, Ousmane Sonko ba ñu ta dem assemblée nationale waaye du dem assemblée nationale boo xam ne dafa am ay manquement ci règlement intérieur bu assemblée nationale su dee am na kenn ku ñuy wax mooy président assemblée nationale moom la ñu war a topp moom la ñu war a duut baaraam moom mi nga xam ne constitution bi moo wax premier ministre bi dafa war a def déclaration politique général ñoom ñu dindi ko ci réglement intérieur bu assemblée nationale di fraude buy wax di am loolu lañ war a wax mais Sénégal ñu taxaw incha allah pour lépp lu ñu man pour wax ko pour Sénégal avancé pour ñu nekk ci monde rural bi dund dund gu neex dund gu bakkane ndax dafa am loo xam dafa war a jógee Sénégal bi Sénégal amee indépendance ba léegi kaw gi dañu leen a sàggane te xaalisu réew mi waa kaw gi ci la ñu bokk xaalisu petrole bi waa kaw gi ci la bokk mais dañuy jël xaalisu réew mi yépp jàpp ne daal grande ville yi rek moo war a am hôpital moo war a am université moo war a am école ñi ci monde rural bi courant sax ak ndox sax duñu ko am loolu la ñii taxaw pour loolu dañ ndax ñi nekk ci kaw gi ay nit lañu dañoo war a lekk war a faju ndax Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi changement ma ngi dog di am Senghor ni mu yoree woon réew mi noonu la ko Abdou Diouf yoree woon noonu la ko Ablaye Wade yore woon noonu la ko Macky Sall yoree woon monde rural bi ba Sénégal di Sénégal ba léegi am na ñoo xam ne ci monde rural musuñoo am courant musuñoo am ndox ba Sénégal de Sénégal ba léegi nañu bëgg réew mi nañu yéenante jàmm te bàyyi mbon gi ak soxor gi ndax am na ñoo xam ne. Euh, dafa mel ni gis Ousmane sonk sax ak gis seen boutique yi la ñu yemale loolu nag mooy ñàkk fayda ñàkk fayda weesuwul nga bañ Ousmane Sonko ba bëgg see bañaale réew mi yow booy bañ Ousmane Sonko bañal usman sonk mais bëggal réew mi